di gis ni juge bi désavoué na Macky Sall ci li nga xam ni moo ko taxoon jóg maanaam éviter vrai sujet yi fexe ba nu mu retenir opposition bi ci biir tribunaux yi di arrêter seen ay jeunes di arrêter seen ay daam ci seen ay biir siège pour que ñu fàtte sujet yi nga xam ni moo soxal sénégalais yi te muy ñaar mooy volonté populaire bi mu bëgg confisquer ak illégitimité ci bopp nguur gi wax nañ ko ñoo ngi koy répété waat reconnaître ñu résultat yu commission nationale de recensement des vote génne reconnaître ñu tamit li nga xam ni conseil constitutionnel moom la war a génne ci kanam président Macky Sall dootul président de la république du Sénégal loolu na ko xam stratégie bi nag jëlul ndaxte juges yi comprendre nañu calendrier bi du seen calendrier c'est un calendrier politique et que ñoom waruñu ci dugg li mu bëgg mooy def glissement communicationnel jóge ci confiscation volonté populaire ak illégitimité pour yóbbu leen ci communication wu arrestation libération soxlawul muy foowee xelu sénégalais yi parce que bu fekkee foowum xel moo ci des il est le moins loti de la classe politique donc amul kenn ku muy jaay xel li mu bëgg duñ ko ci fekk lii nga xam ni mooy sujet bi mooy du président wu Sénégal amul légitimité boobu sénégalais yi jóg nañu massivement voté pour le changement léegi mi ngi xool chantier bu ñu mën a teg pour confisquer volonté boobu nga xam ni l'opposition fera face je vous remercie.